que benn question xam naa rawatina Touba ku ne xam ne euh, social bi lañ ñëwaat. Mm-hmm. mu am lu maanaam Baye Fall taxawaay bu ñu am ci Touba rawatina ci wàllu ndogu yi nga xam moom la ñuy moom la ñu jox. non ñooñu moom mention spéciale la communauté Baye Fall yal na leen sëriñ Touba teel a feeñu te feeñu na leen ndax gis nañ ni ñu demee ak sëñ Mountakha ndax xoolal bi fi sëñ Mountakha toogee léegi. mission yi nga xam ne seq nañ ko sëñ Muntaxa ci dëkk bi bi ci mujj muy déguerpissement bi amoon ñu leeral dëkk bi ba mu leer nañ ñu leen ciy sant ñu jóge ci loolu ñu ndogu yi ñëw ak kër sëñ Touba gële nekk ca Mbàkke ñu koy tabax jóge ci loolu ndogu yi ñëw ñu ci def liggéey bu am solo ci seenu ñaq kenn fekku leen ci li lay war a sóoli loolu ñuy indi nañ ci sédd sancaan yi ndax nag ñu ngi liggéeyal seen seen maam maam Cheikh Fall ci wetu sañ Touba mais am na ñoo xam ni dañuy ne ci kër sëriñ si seen bopp képp leen fay bàyyi dañuy am ndogu ca seeni kër wàcc ko fa ñëw li nga xam ne moom la communauté Baye Fall di indi pour ñi nga xamante ni njabootug sëriñ bi lañ nekk ci sancaani war cee xéewlu moom la ñuy jël di ko def naka sudut noonu jékkut jaadut te rafetut ñooñu nga xam ne am nañ ay ndogu te war a mën di ndogoo ca seeni kër nañu toog ca seeni kër di ndogu ñi nga xam ne amuñu ko yaakaar sëriñ bi ñëw ci jumaa ji wala ñëw ci dëkk bi nañ leen bàyyi ñuy ndogoo ndogu yi gis nga foo xam ne la nga fay jëlee sa moroom a ko fay indi nga di ko fa jëlee di ko fa yóbbu feneen ñàkk jom kepp la ak ñàkk jom kepp la te ab murit warut a ñàkk jom te ñun murit waruñoo rus dañoo war a jomb ñun murit waruñoo rus te war nañoo rus nag yenn yi Baay Faal yi moom mention spéciale ci liggéey bu am solo bi ñuy def lii nga xam ne ñu ngi koy def giñ naa ci sëñ Tubaa sëñ Tubaa nga koy gis seen maam maam Seex Ibra Faal nga koy gis kon ñi nga xam ni ñoo ne ci kër sëriñ bi amuñu benn mission boo xam ne sëñ bi assigné leen ko lu dul dañuy nekk ci mbedd yi fu ne ñu tambaambalu fa ba heure ndogu jot ñu daw dem toog fa wala ñu wàcc seen i kër naan ma nañu yem ci seen ndoguy kër yi di ndogoog seen waa kër yi li war a jëm ci sancaan ñoom benn bool bañ te génn fenn na lépp di des ci dëkk bi na lépp di des ci dëkk bi am na ñoo xamante ni ñoo ëpp ndogu fop ñi nga xam ne ñoo fi nekk kon lii nga xam ne dafa des ci dëkk bi nañ ci liggéeyal sëñ Muntaxa nañ ci liggéeyal sëñ Touba nañ leen ko jàppale te yàlla tax weeru koor bu mu tax kenn kenn kenn jàpp ni la ngay lekk sa kër li ngay jëlee ci sañ bi di ko fa yóbbu mën na ko déedéet du ko remplacer de ndax weer la rek weer la kon ñu ngi lancer un appel képp ku man dara ngir yàlla jëmmi rasulullahi dee leen bu waxtu wi 5 heures wut leen glace wut leen ay mburu wut leen ay suukar dem leen ci quartier périphérique yi ñu leen di dooleel di leen jàppale ñi am mooy te man koo def nañuy dem ci hôpitaux yi di taxaw di xaar ñi am ay ordonnance te mënuñu koo jënd ñu leen di dimbali. surtout pétitions am solo sama xel mooy Moukhaddamatoul Khidma ñu ngi leen di si jumaa ji. Mhm. ñu barki lu am solo yóbbu ko ci euh, mag bi nekk waaw foofu maa ngi ziar bu baax sëriñ bi ko jiite sëñ Abdoulaat Abdoulaat Bousso di ziar aussi suma cousin bi fa nekk muy Ablaye jóob moom yaayam suma rakku papa ma koy ziar di gis liggéey bu am solo bi ñuy liggéey mu muqaddimatul xidma ñoo ne ci morgue bi ñoo ne ci armeel yu njëkk yi ñoo ne ci armeel yu mujj yi màggalu tubaa gi jàll ñu gis liggéey bu am solo bi ñu def ndax ku ne xam na ni ndox manqué woon na pour ñu waajal sax way dawlu yi mais ñoom ñu am ci taxawaay bu mat sëkk muqaddimatul xidma Tuubaa ca kanam bu tarxiya yi la communauté Baye faal bu ñëpp royoon ci ñoom giñ naaj sëñ Tuubaa problème du ci dëkk bi te Tuubaa dina mel ni Màkka ak Médine Thank you.